mbokku Sénégal lay wax naa dañuy dellusiwaat tuuti ci yiñ fi daan wax ci ginnaaw ak fii réew mi tollu ci jafe-jafe xat-xat fitna te yàlla tegu ko Sénégal loolu nag mu war a jur jàngat ci li ñu waxoon ci ginnaaw jëmale ko ci ñi jiite réew mi ñi ñuy wax ni ñoo jiite diine ji ndax ñi jiite réew mi leer na ndax dañ leen fee teg ci sart yu leer ñoo xam ne teg nañ leen fi waaye ñi jiite diine ji nag moo leerul ndax côté boobu amul lu ñuy vote wala ci sart yu ñu fiy teg ñu nit ki moo taxoon ma ni imaam yi ci quartier yi ak sëriñu daara yi lañu war a woowee sëriñ si ndax ñoom jàkka joo dem ka fay jiite sax dañ ko faa teg kon nag mën nañ kaa woote woowee kilifa waaw ndax dañ koo tànn teg ko fa waaye ñi ñuy woowee kilifa diine euh, réew mi agsi na ba fii te kenn dégguleen ci nañu bàyyikoon xale yi continuer seen lii ñuy dox ñu bañ leen cee sikk waaw bañ leen cee wax dara ndax jël nañ seen décision boo xam ni bëgg nañu téyeel li ñu moom li ñu moom bëgg nañ koo jëlal seen bopp waaw te mooy li ñu bokk ñëpp bokk ko ñu jël ko dénk ko nit mu xëy fowe góor góoru yàlla yëpp waaw xëy fowe góoru yàlla yëpp ba nit ñi di am yaakaar ba xëy di ko tànn jigéen ñi génn seen kër di daw di ko sànnili carte ñi di daw di ko tàccu du juddu moo ko ko may du xam-xam moo ko ko may moom ci boppam xam na ko ndax moom xam na fa mu jóge muy président bii fi nekk tey moom xam na fa mu jóge kon nag bu ñu amee yaakaar boobu ba indi ko fii tey teg ko fi jàppoon ni ña doon daw nekk ci seeni kër yi bu ñu xëyee lu ñu toggal seen doom yi jafe leen ba ñuy gàddu seen pañe yi di dem ci marché bi njël Sénégal boo jógee sel quatre heures du matin man dama daan jaaxle ci ñi naka lañu ñu mën a jóge heure bii ci ay jigéen du ñu ànd ak nit ci lëndëm gii di génn ku ci nekk bokk pañe soo demee ci oto yi super yi ñuy woowee super ñu tegle seen pañe yi ñii ñu ngi jëm marché jën ñii ñu ngi jëm castor ñii ñu ngi jëm faneen heure boo xam ne doo xalaat waaw jigéen ci ci loolu yow yërëmoo ko waxuma nag ña nekk ca kaw ga di roote ay bidon wala ñii sax waxuma la bidon mais ndox mu ñu root gisuñu ko ay kilomètres la ñuy dox pour root te situation bobu lu ko régler lu ko régler di lu touti ci budget Sénégal mu doon situation bo xamni yàlla teggu ko Sénégal ndax itam yàlla ku nek jox na la lo dunde yàlla ku mu bind rek wa ma min daabatin fi l ardi illa ala llahi risquha ku nekk jox na la loo dunde joxul kenn loo yàq nag waaye ku nekk ku mu sàkk jox la loo dunde mu jaar ci sa loxo walla mu jaar ci loxo keneen organisation la la ñuy jàngal pour kenn ku nekk la nga war a jot nga jot ci kon bu ñu organiser réew mi dénk ko ay loxo am lu ñu yaakaar ci ñoom pour ñu organiser ko organiser ko pour kenn ku ne mën cee gis sa bopp ñu xëy jël loolu def ko yàq def ko nguur def ko doole dem ba xeeb askan wi leen ko joxoon ba bu ñuy bu bu ñuy wax ak yow sax dangay mel ni ñaari nit ñu bokkul fu ñu jige ñoo ñoo taxaw loolu nag na Sénégal jug ñu fuqar ñi ko téyewaat ko ci seen loxo seet ku leen doy ñu jox ko ba ëllëg ku fi toog ku fi toog ëllëg rek dinga xam ni réew mii dañ koo teg ci yoon doole du la fi teg police du la fi teg gendarmerie du la fi teg militaire du la fi teg population Sénégal ñoo ëpp police ñoo ëpp gendarmerie ñoo ëpp militaire te bis bu ñu ci jógee lii dinañ régler loolu ndax duñ ci dellu ginnaaw kon nag comme politiciens yi ñu ngi jël yoon wii di def lii ñu def ñi ñuy woowee kilifa diine amuñu courage su taxaw wax ak moom pour mu dellu ci ginnaaw kon xale yi bu leen kenn tudd di leen wax nañu dellu ginnaaw waaw bu leen kenn tudd di leen wax nañu dellu ginnaaw xale yi Sénégal ñàkkuñu kilifa xale senegal ñàkk ñu yar ku ca nekk am nga kilifa ku ci nekk am nga foo foo wékku ku ci ne am nga foo yaakaar waaye fa nga yaakaar yàllaa tax nga yaakaar ko waaye du ñii fi toog ñoo tax nga yaakaar ko yéen ak ñoom yéen a bokk yaakaar ku fi yaakaar dëkk rek wala nga yaakaar fa bërëb rek ka sanc bërëb ba moo tax te ka sanc bërëb ba dafa am ku tax mu sanc bërëb ba te mooy yonent yàlla Muhammad waaw yonent yàlla Muhammad nag bu ñu gisatul kenn ku ñu mën a wax ci moom lenn ñu dem ak la xam ci moom wékku ci moom waaw lii mooy wax ji kon nag Sénégal kenn moomu ko Sénégal kenn ëpplewu fa kenn Sénégal ku ñu fay naw ci taxawaay ak kàddu lañu la nawee loolu bu amatul kon ki préféré climatiseur am ak otoom bu rafet ak kër yu rafet yuñ ñu ko tabaxal ak jasineeram yu muy sol waaw na toog ci climatiseur yooyu ak jasineeram yooyu ak oto yi te bàyyi xale yi régler problème mu senegal lii daal laa leen bëggoon a wax te di wax ni nag buñ ci dellu ginnaaw feek jëlewuñ ko ci bopp réew mi moom Macky Sall waaw man waxatuma problème mu jàpp bi ñuy jàpp Ousmane Sonko waxatuma problème lii ñu koy tuumaal yooyu yëpp man dootul sama problème problème bi mooy lii bu ñu ko buñ ci dellu ginnaaw lu dul Sénégal dañ koo téyewaat ci loxo ñi ko moom teg ko ci loxo yi ñu soxla te ku fay toogate ñu wax ak yow yu wér soo ko deful ñu génnal suñu bopp délogé la loolu na ci Sénégal maa ngi ciy woo Sénégalais yëpp incha allahu maa ngi ci yoon te maa ngi fay ñëw bu ma fa ñëwee itam lu ma ci war a joué ci taxawaay dinaa ko ci def waaw lii laa amoon lu may wax ci Sénégal ñu ngi téye doomu jàmbur di ko sonal di ko fitnaal waaye am na loo xam ne dinaa ko wax ci digganteem ak moom moomu ñu téye man loolu xam naa ko te am naa ñu ma ko waxoon boobu maa ngi Sénégal te dinaa ko wax waaw moom moom xamul ni kii mu téye loolu duñ ci àggagum waaye dina ko gisal boppam dina ko gis loolu dina ko gis li ñu naan al isharatu takfi junj doy na moom dina ko gis waaw ci téye bii mu koy téye ci lay daje lu mu mësul daj ci moom moom moom Macky Sall ci la koy daje te loolu nag déggoon naa ñu koy avertir di ko wax. xaw ma nag ñoom ñu ko teg waaye man li may wax xam naa fi ma ko teg waaye déggoon naa ñi koy avertir di ko wax lañ ko doon wax dëgg la donte man xaw ma ñoom fañ ko teg waaye xam naa ne ñu koy wax dëgg la ñi ko bis boo ko téyee di nga sonn waaye munu ko gëm waaye nag man wote lu ma ko ànduma ak moom bokkuma ci parteem waaye dinaa xamal président de la république ni ko tas na yaakaaru sénégalais yi continuer na di jaayanteek ñoom doole waaye dina am mbetteel ci kanamu Sénégal képp kuy politique aussi di ko xool di nga am mbetteel ci kanamu Sénégal képp ku sa xel nekkati ci politique ngay bëgg réewum Sénégal wala nga am loo foogoon ci Sénégal ba tax politique tax laa jug bu dul jubal ak jàppale néew doole yi wallahi wal quran al azim di nga am mbetteel ci kanamu Sénégal parce que am na ñoo xam ni dootuñu ko bàyyi te jël nañ ko la ma ko waxoon bind naa ko lettre ouverte affiché ko ci sama page Facebook ni ko déclaré nañ la guerre boo xam ne duñ ci dellu ginnaaw yàgg ko àndal lu dul di nga torox bëccëgu ndara kàmm wallahi wal quran al azim du du dellu ginnaaw du ma ni ko boo delluwul ginnaaw parce que xam naa ne du dellu ginnaaw waaye nag mi ngi ci kanamam ñu ngi mi ngi ci suñu kanam incha allahu nañu ñaan yàlla may ñu tawfiq al ilahiya maa ngi ciy gërëm oustaz Mouhamed Ahmed Dame Lo dégg naa intervention bi mu def ci benn vidéo bu mu yónnee mu ci alerté di ci woo kilifa diine yi ci di ci woo bopp ñi ñuy tudde kilifa diine waaw def na li ko war donc kilifa waaw xafizakallahu wa ayadaka euh, yaa cheikh euh, ahmad dam ñu ndokkeel la ci loolu waaye ñi ngay woo yow def nga li nga war a def waaye ñi ngay woo ndax ñoom ñoom la ñu war a woo waaw ndax ki ñi dafay politique moom xam nañ ni politicien la wuti na partem wuti na reconnaître nañ ko waaye ki xëy ba xëy di woote woo kilifa diine kooku kenn mënul ni kilifa diine la lu dul def ko wane ci xam-xam ci jikko ci jàngale ci topp sunna loolu bu amul képp ku ñu wooye kilifa diine dañu lay nax yow ci sa bopp da ngay nax sa bopp te bis dina ñëw sa masque wadd waxoon naa ko fi ni masque yi dina wadd masque yaa ngi commencé wadd te sénégalais yi daañu identifier le Seyid Cheikh Ahmed Tijani waxoon les bandits de grand chemin ñoo jiite ñoom la ñuy woowee kilifa diine ñoom la ñuy woowee kilifa politique bandi nekkul ci kaw mbedd mi di taxawaalu ñii di sàcc dañu sonn ñii di agressé dañu sonn duñu ay bandi mais les vrais bandits de grand chemin mooy ñi ñuy woowee kilifa diine ak ñi ñuy woowee kilifa politique donte kilifa diine nag am na bu dul bandi kilifa politique it am na bu dul bandi waaye ñi ñu ko adressé tey te du ñoom moo tax may wax te masque yi dina tombe ñu identifier leen bu ñu mënta régler seen problème bi nag nañu toog ci seen i saal tabaxal nañ leen ay sato ku ci nekk ay ak ay village fa nga dëkk jox nañ leen ay 4 x jox nañ leen ay luñ jënd seen i jasineer ku ci nekk yaa ngi gonfler sa compte banque yaa ngi toog ci sa saal di géex ak di naan ataaya loolu def ko ñu bàyyee la ko waaye incha allah population Sénégal dinañu jël seen destin en main régler situation réew mi teg ko ci yoon teg ko ci loxo bu boobaay nag ñu bëgg a ànd ak yéen itam sukk ci seen kanam incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.